asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi am nañu mbégte dellu siwaat ci jotaay yu am solo yi nga xam ni ñu ngi ci dëkk bu sell bi Touba rawatina fii ci Daarul Xudoos di fàttaliku bis bi nga xam ni ci la sëriñ bu mag bi ñëwoon Touba loolu Cheikh Mamadou Moustapha eh, doon ko fàttaliku at mu jot ba tey jii ñu ko wëlbatiku di ko ci fàttalikuwaale moom Cheikh Mamadou Moustapha eh, muy magal gi nga xam moom lañu amee fii ci Darou Khoudoss tey kon eh, seen télévision bu Fatimul Bichri suba ba léegi gis ngeen ni programme yi nga xam ni mi ngi koy amal ci biir dëkk bi yëpp di leen won li nga xam ne ay xew-xew la fi plateau bi nag tey jii plateau spécial la boo xam ni dafa jëm ci dundu Cheikh Mouhamadoul Moustapha waaye nag dana am ay pàcc yu bare bari yoo xam ni danañu ko waxtaanee ci biir jataay bi jotaay bi nag tey ñu ànd ci ak Serigne Cheikh Fall Taïf moom bokk ci comité d'organisation bi ñu bëgg a waxtaanee maanaam exposition bi nga xam ni def nañ ko ci màggal gi ren te duppe ko Serigne Manoumbe ngir taxawaayam ci yoon wi waaye ngir taxawaayam. bi nga xam ni euh, taxaw na ko ci digganteem ak Cheikh Mahamadul Moustapha Serigne Cheikh Lo Taïf ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di la bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñun ñuy topp dëkk ci àdduna asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh jërëjëf Cheikh bi ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay ziyaare bu baax ziar mboolem ñi nga àndal ci liggéey bi ñëpp di am mbégte bu baax a baax ci waxtaan wi comme noonu ko waxee rek ci comité de régulation bi waaye ñu nekk membre culture wilaya yàlla dogal exposition bi nga xam ni am na jot daañu koy def waaye di ko rajaale kii mag ñi nga xam ni ñoo àndoon ak Seexul Xadim xam ni moom loolu moom mooy particularité at mu jot menn mag la ñuy tànn comme daaw jéeg rek ñëpp xam ni Cheikh Sidi Makhtar ni mu bëgg woon ak bennoo ñu tuddee ko Cheikh si Cheikh Alhaji Malick Sy mm-hmm. daaw ji tuddee ko Maam Thierno mm-hmm. kon moom la ñu ko tuddee suñu mëndumbi xabbaan moom it doon kenn ci mag ñi koo xamante ne bii saa bu ñu ko jàngaloon mag ñi saa bu ñu ko jàngaloon ndaw ñi bañ xam ko kon crise de valeur bi ñuy wax kon du am ndax moom bu fekkente ne dañu koy jàngaloon kilifa yi ñu ci dañu mat sëkk kilifa mais bu ñu ko waxoon jàngoon ndaw ñi taalibe yi ñu ci dañu mat sëkk ak taalibe si Amadou Ndumbe moo tax euh, loolu moom mooy importance su def exposition bi maanaam bu fekkee ni jamono dafa toll fii nga xam ne ndaw ñi soxla nañu wàllu référence ci wàllu liggéey ci wàllu nit koo xam ni pëstéef maanaam ku taxaw dëgër ak koo xam ni day participer ci biir am réewam euh, Serigne Manoumbe kenn la ci ñooñu lan moo doonoon taxawaayu Serigne Manoumbe waaw Serigne Manoumbe ab taxawaayam day bu yàgg a yàgg man nga wax nii bokk na ci li tax ñu tuddee ko bis bii mooy diggante ak Cheikh Moustapha waaye Cheikh Madoumbe avant Cheikh Moustapha dafa àndoon ak Cheikh Khadim taxaw ci yoonu Mouride taxaw boo xam te ne bii mes naa wax ne am na côté yooyu kenn fekk ko ci moom Cheikh Madoumbe waaye la jiitu loolu fi ne Cheikh Ahmadou Ndoumbe moo ko Cheikh Khadim ñoo bokk woo jóg ci misaal maanaam magama ndax seen ah, mbokk ci ak mbokk waaw waaye man maanaam par exemple suñu waxee loolu mooy dañoo jigee ci mbokk ndax Cheikh Cheikh Ahmadou Ndoumbe Cheikh Ahmadou la mais waajuram moo tudd soxna Ndumbe ñu koy dànkantale sëñ ma Ndumbe mais Ahmadu la tudd moom waajuram bu góor sëñ say sëñ Seydou Mbacke lañ koy wax sëñ Seydou Mbacke waajuram mooy soxna bu so Boussa soxna Sayr Fatim Boussa maam Maaram mooy waajuram ah moo bokkoon Ahmadou Soxna Boussa Ahmadou Soxna Boussa mm. waaw Ahmadou Soxna Boussa maam Maaram mooy waajuram dëgg la Ahmadou Soxna Boussa Sayr Soxna Boussa ak Ahmadou Soxna Boussa ñoo bokk waaw waaye Sayr Soxna Boussa nag mooy waajuru sëñ Seydou mi waajuru sëñ ma Ndumbe soxna Seexul Xadim maam Mor sa Sali ngay wax maam Balla Aysa maam Maram dëgg la kon noonu lañ jigéen ñoom ñaar ci bokk ci bokk mm. nga xam ne seen i bokk ay doomi bàyyi lañ mm. même seeni i waajur it boo ko toppee ñi ngi dajee ci soxna Daaru Ñang ndax euh, sëñ sëñ Manoumbe ah so soxna Manoumbe Ñang mooy waajuram soxna ant ba soxna Baara Anta di waajuram nga topp ko ba ci soxna Daaru Ñang dëgg la soxna Jaara soxna Asawaalo soxna Daaru Ñang nga xam ne moom noonu lañ noonu lañ bokkee ah soxna Assa Waalo soxna Daaru Ñang moom mooy waajuram mooy waajuram nga xam ne fay ñoom ñaan foofu lañ dajee dañoo dajee ci bokk ci wetu waajur wu góor ak wetu wu jigéen waaye nun ñu dajee nag it nag ah. suñ boorum boole leen ndax xam ngeen ni Mamadou Anta Sali mi waajur Sëñ Xadim bi ma bajo ko wootee ci Ñooro ngir doon dajale kilifa yi diine yi ngir di leen rawale mm. en même temps ñu koy jàppale sëñ di waju si mumum rek daa bokkoon ci ñu wuju woon woote boobee mm. moom nag waajuram foofa la des poroxaan waajur suñu mënu mbé waaw fa des ah àndoon na ci woote bi ma ba jox woote woon ci poroxaan bu baax ni ma mor ànd sali wuujee woon ne poroxaan waaw ah. la sëñ Seydou wuujee woon moom fi mu nekkoon sori poroxaan mais bi mu wàcc bi liggéey poroxaan lañ ko denc mais bi ñu ko dencee poroxaan sëñ sëñ mënu mbé doon tout dañ koo jël jox ko Mamour moo ko jàngal alxuraan ba poroxaan googu la mokkalee alxuraan mm-hmm. bi mokkalee alxuraan nag bi soxna jaara wàcce liggéey bañ jóge bañ janj ko fa maama ànd sa fa war a ñëw nag ngir ànd ak Lat Joor ci liggéey bi patar la njëkk escale booba Lat Joor mi ngi kër Amadou Yàlla booba suñu mëndumbe ànd naag maama ànd sali jóge Poroxaan ñëw patar wax nañu li a jàng ci xam-xam lépp moom suñu mëndumbe ginnaaw bi Lat Joor jógee euh, euh, kër Amadou Yàlla mm. dem deqale sëñ euh, maama ànd dem Mbacke Kajoor mais fa la ba tey fa la ànd ak nga xam ne fa la nekk ak moom ba ni Mamadou Anta Sali wàcce liggéey fekk boobu nag mook Seexul Xadim maanaam ak euh, maanaam ndax juróom juróom-benn at la ko Seexul Xadim magee ndax waaw ndax mi ngi gane jamono 1952 53 waaw 1852 53 waaw si mënu mi ngi gane jamono juróom-benn at moo dox seen diggante juróom nga xam ñoo bokkoon a nekk ca daara ja waaw Mamadou Anta Sali wàcce liggéey ah, ànd ak suñu mënu be kon jiitu na diggante woote yoonu murid jiitu na ko mhm. poroxaan dama ne xam nga maam Mamadou Anta Sali bi muy dem poroxaan mhm. soxna jaarab xuru Mbàkke la jógee yóbbaale Seexul Xaadim muy tur tànk sëñ Manoumbe bi muy dem bi ma bi bàyyam dem di dem ca woote da koy bàyyi tur tànk la nga xam ne ñoom foofu lañ njëkk a daje muy poroxaan ànd fa ne fa ànd fa ne Pataar en même fa ne Mbàkke Kajoor la ba bi sëñ Mamadou Anta Sali nelawee mhm. sëñ bi yor daara ja sëñ Manoumbe en même temps daa ba bi sëñ bi wootee wooteem bi si boobu daal ne képp ko képp si jàng képp képp la fi indi man ngaa dem wuti xam-xam waaye képp si da ngaa bëgg a jàng waaye ànd yit it ñi mu àndal nga des sëñ mënu mbé ci ñu njëkk a njëkk a jaayante ca la bokk ca foofu ci ci Mbàkke Kajoor bi sëñ bi jógee ñëw Daaru Salaam daa ànd ak moom ca sanc Daaru sëñ bi jógee fi ñoom Mbàkke Bawol daa ànd ak moom sanc Mbàkke Bawol Euh, sancub Touba la bëgg wax nga xam ni ñeenti daara yi njëkk a def fii ci Touba muy daara yi sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye daara yi sëñ Massamba Diop saab daara yi Mame Seraya Fall ak daara yi sëñ Abdourahmane Lo moom ci daara yi sëñ Abdourahmane Lo la nekkoon moom moom sëñ Abdou nga xam ñeenti daara yi moom bokk na ci 16 personnes yi fa nekkoon moom ca la bokk ndax daara ju ne ñeenti ñoo fa nekkoon man daara suñu daam Abdourahmane la nekkoon moom ci daara daam la féete woon fa la fare woon ba bi suñ baaree gën a jamono bi suñ bi yiwee ñi ëpp ci mag ñi suñ daam bokk ca moom suñ mëndumbe mii ñuy waxtaane moo léegi moo doon jëriñu daara ja maanaam moo jëriñu daara ja bi sëñ daam wàcce liggéey waaw sëñ dem sëñ be moo doon jëriñ daaray si sëñ daam Abdourahmane waaw jëm yoroon moom moom moo ko yor kon ne ak donga yi nag ak liggéey bi nga xam ne kon moom moo si dañoo bokk lépp waaye dafa jaay sant yoo jëndee ko taalib ndax ñoo bokk ci anam yëpp mais mu ñi njëkk a taxaw ci bi ndaw moom sëñ Mandumbe ci la bokk ba bi mu wootee ba pare ba kenn mënu ko ci dëgg la la sëriñ Cheikh Fall Taïf moom la ñu àndal ci émission bi di waxtaan ci sëriñ Sëriñ Mandumbe Mbàkke taxawaay bi mu am ci yoonu murit waaye taxawaay bi mu am ci digganteem ak moo Cheikh Modou Moustapha muy koo xam ni ku ràññiku la ci wàll yëpp ndax ni nga ko waxee léegi taxawaay bu am solo la am euh, ñi ngi profité di siyaar mbokk yi nga xam ne ñoo topp ci bitim réew ak ci biir réew mi moo xam ci Facebook bi la moo xam ci YouTube bi la moo xam ci Twitter la wala Periscope fépp foo xam ne daal ñi ñu fay topp rek ñu ngi leen di ziar bu baax a baax wax naa leen saa bu ñu toogee rek ma ne leen euh, ñu ne yéen ñoo bokk émission bi ak jotaay yi nga xam ne ñu ngi koy def bu ko defee kon man ngeen di yónnee seen i message ngir participer ci émission bi en temps réel ngeen di yónnee seen i message ak seen i question euh, bu ko defee dinañu am occasion wu seen Cheikh Fall Taïf tontu ci euh, ñi ngi waxtaanee kon ñu jëm ci exposition bi nga xam ne ren jii dañ koo dara jaale Euh, sëriñ Manumbe Mbàkke nga xam ne at mu jot dañuy tànn kenn ci euh, mag ñi dara jaare ko ko exposition te daaw ñu tudde woon ko moom Alhaaji Malick ngir benn la gi nga xam ne Cheikh Sidi Moukhtar woote na ko euh, gannaaw sëriñ Manumbe bokk boobu mu bokk ak sëñ Touba ak taxawaay boobu mu am ci teel a ànd ak sëñ Touba lan moo doonoon taxawaayam ci jamono yi nga xam ni sëñ bu mag bi jugee na njaareem ñëw Touba lan moo doonoon taxawaayu sëñ bi xam nga sëñ foofu sax da ngay wax ni mm-hmm. ab taxaam dafa jiitu loolu ndax da ngay wax ni Seex Xadim ginnaaw bi mu demee ci géej gi xam nga sëñ Moodu mi dafa am ñetti particularité yom si nii kenn da ko taa fekkut dëgg la mu am yeneen yoo xam ne nag yeneen yoo xam ne bii soo ca demee nungu mm-hmm. kenn mën ko ci dëgg la bi si njëkk mooy mbay mm-hmm. bi si njëkk mooy joxe addiya bi si njëkk mooy tarbiya dëgg la ndax Seex Xadim bi mu dem ci géej gi dafa waxoon képp ku ñëw ngir tarbiya boobu fekk na am seen fan wàcc nan la yóbbu ci Ahmadou dunde uh-huh. la deuxième mu ni mboolem dund bi nga xam ne moom la waa di dunde Cheikh Ahmadou Dumbe moo ko daan béy moo ko daan moo tax moo xam ne la Cheikh Ahmadou Dumbe lu mel noonu sëñ Saliou daana ko seere lu bëree bëri ah, mi ngoog mm. moo tax moo tax ma ni la tab ab tabax ci Touba mm. sëñ moo ko fi njëkk a tabax moo ko fi njëkk a tabax ci biir Touba waaw te la ko waral mooy dund bi muy andi pour mu am fi koy teg ndax comme ab dundam day fekkante. Ah, ca day bi li ko sabab mooy. waaw maanaam dund bi la bëggoon fu mu ko denc. waaw koo xam ne dana tax mu sàmm. waaw looloo sabab njëkk tabax gi. loolu moo sabab njëkk tabax gi. Hmm. ca tabax ba dafa barkeel parce que tabax ba fi nekk nii mooy école franco yii nga gis Serigne Cheikh di ci jàngale fra maanaam franco arab mu ñuy jàngale français ak arabe te tabax ba bi mu tabaxoon. mooy école yi tey yii nii mooy école yi nii yii ne bayit. yii nekk biir bayit yii nekk bayit. Hmm. mooy tabax ba mu tabaxoon kon dama da cee amul léegi bu dee yises nag du nu kenn na ko ci kon nee naa la moom sëñ bi dem ci géej gi daa woon kuy tarbiya nañ ko booleeg Mandoumbe mais li njaboot gi dunde moo waxoon si si maam Thierno suñu Mandoumbe lu mu bay na ko jox maam Thierno ndax maam Thierno moo yoon njaboot gi mais wàllu addiya mu jàmbaare ci woon jàmbaar joo xam bii ndax bi Cheikh Khadim wootee jumaay njëriñ ñu ñu sasoo si Moussa Ka boo ko nettali nee na sëñ ma ndumbe dañu woon at mu jot ci la jamonoy naqari naqari daa joxe téeméeri junni at mu jot ca téeméeri junni yooyu téeméeri junni at mu jot at mu jot dana ko joxe ca du ko yàqal mbay mi muy bay di ko indi fii ci dund bi déedéet déedéet jotewuñ dara jotewuñ dara bokkut ak it nag bu ñu wootee woon bu ñu wootee waneen sas loolu mooy un da la deuxième bi si bi jógee ci géej gi ba ñëw gànnaar da ko woolu xamal ni ko jumaa jooju sax liñ ciy def yow mu numbe yow laay jox ahlu Mbàkke yaa leen di laaj ca liñ la jox yaa koy encaissé ngir confesse boo xamante loolu it dégg naa ko ci mag ñi nga xam ne fekk nañ sëñ bi di wax ne sëñ uh-huh. moo daan laaj ñu féete ci bopp sëñ bi waaw mais loolu moo ko woo gànnaar uh-huh. ça wax ko ko uh-huh. ba pare mu door a ñëwaat nga xam bi ñu nekkee gànnaar en 1903 waaw fekk na ko fa moo xamal ko ahlu Mbàkke yaay laaj seen i sas di ko lajale ndax yow jëwriñ nga xam nga jëriñ day wane aw yoon xam nga yoon mii laaj bu fekkee ne yow nee nga almaja mën naa joxe téeméeri junni ba pare door a laaj nga xam ne yow jëriñ joo xam ne kenn mënu ko moom kenn mënu ko toujours kooku lañ lañuy jiital bu baax a baax a baax hmm. léegi xam ne ko loolu ci ay particularité la woon hmm. léegi bi loolu amee nag muy ànd ak ci loolu ba sañ bi eh, dem ci géej gi ba ñëw mu mel ni ci diggante boobu sanc na fi lu man ñetti lu man ñeenti daara parce que dafa sanc kër ma gay ndaw daaraam la ba daaraam la sanc fu wax saam sañc fu ñuy wax xujjël sañc fu ñuy wax déedéy yëpp nag ay daara la woon pour mën a jekku mbay diggante bi sëñ bi dem ci géej bi la sañc daara yooyu waaw maanaam ji mu ci mujj sañc mu ci mujj sañc mooy saam ak déndey parce que saam 1923 la ko sañc déndey mu sañc ko 1925 ah. te xam nga sëñ bi mi ngi mi ngi ñëw 1912 waaw mais yurut yooyu yi yooyu moo jiitu waaw demuk sëñ bi la waaw waaw waaw hmm. ñetti maanaam déndey ak saam ginnaaw ginnaaw gi mooy nekk njaareem waaw nekkul sëñ bi njaareem nekkul sëñ bi te ba mu fa sanc nag sanc ko ngir ab dëkk mais daara la ngir gën a mën a jekk mbay ba man di indi dund bu dooy am ma jot ci kër sëriñ dëgg la maanaam kon moom wàllu mbay man nañ wax ni kenn ku ko ci mën daanaka amul amul ndax lim daan mbay euh, kenn mënu koo takk kenn mënu koo takk maanaam mbay mu bare bare bare la daan doon mhm. euh, kon suñ mënu mi daal mën nañ wax ni kon mhm. euh, yi nga wax tudd léegi kenn gënu ko cee jàmbaar mhm. boo lay joxe addiya téeméeri junni at mu ne ak ab dund boo xam ni du am dak du am dak Sëriñ Sall ko daan wax ni masaa tudd Serigne be day wax ni moom diggante bi sëñ bi dem ci géej gi. Mm-hmm. dañ daan yore dundub njaboot gi loolu moo ko gën maanaam euh, marqué ci sëñ Mandumbe waxtu wu nekk moo koy fàttali mhm. jàmbaar googu la la la amoon mhm. waaye mhm. Euh, kon taxawaay moo doonoon loolu ci jamono yi sëñ sëñ mag bi ak liggéey yooyu mu def yëpp waaye bi ñu sëñ bi euh, di di di déyaale ji ak borom di ñëw fii ci Touba mel na ni bu doon koo xam ni ku war a wàcce war naa tekki laxasaay waaye dafa mel ni boobu la gën a tekkaat laxasaay moom sëñ Mandumbe waaw moom la xam nga ñi ñu wax ne ay mag la wàcce leen man nga wax ne mbaguñ ko daanaka maa ñi nga xam ne dañ wàcce woon moom jafe def ko jëwriñ ña ñëwandoo woon ak moom a mm. mm. mm. dafa mel ni nag si mën be ci li ci li li dafa mel léegi moom léegi kuy door a kuy parce que li koy li mooy dafa tabaxoon ab bâtiment ngir léegi fu dund bi nekk mais dafa mujj léegi bâtiment bi dafa tuuti mais am sàq la tabax sàq xam nga mi sàq ko dégg. waaw te fii mooy sàq mi nekk fii. waaw fii bâtiment bi nekkoon. sëñ Manoumbe bee ko defoon doo ko defar. Hmm. pour la nag ab dund maanaam ku nekk Touba ku ne dégg nga sàq mi. jamono si Alaaji Baara. lañ ko déplacé mais ñëpp ko gisoon mais sàq mi moo ko defaroon la demal Seexul Xadim ci ab dund ba bëgg koo ful waaw xam ni moom loolu mooy numéro deuxième bi ñu njëkk a jaayante ak Cheikh Moustapha ci la bokk te it yu mu si jaayante ga mais am na kilifa yoo xam ne bii suñ mënu tax ñu jaayante am na kilifa goog suñ mënu mbee da koo romb fekk ko mu toog mu ne ko waa diw looy toog mu ne man de damaa jaaxle ndax Cheikh Moussa Cheikh wax mi fi jógee ci man damaa gëlëm mu ne ko yow kat kon kon yeewoo mbir ma ca Moustapha la wax nañu kilifa kilifa goog daa génn paaka ne ko tey de ba ma ren ne ma da nga ma ren ndax man ndax man ab tegalaa woon amoon borom kër ndax damaa gëlëm moom. Hmm. kooka wax nañ moo tax mu jëbal ji. kooka moo si mënu tax dem jëbal ji jëbal ji si ak ñeneen comme si mënu be man ab exemple la ci sëñ Touba fu mu dem. dañu xam ne foofu la mbir ma nekk. dëgg la ñaar ba bi Cheikh Moussa di fondement jumaa ji. dafa waxoon ni moom lu mu am maanaam xam nga fee dafa sasoo woon. waaye fii nag dañoo du am dara ba keroog jumaa ji noppi nga xam ne léegi la mu daan def léegi amatul nat amatul nat amatul nat kon dafa xam ne seex Moustapha waaw eh, gannaaw sëñ Touba ngi fi woon te ngi doon def Cheikh Moustapha nag kon taxawaay bu mu amoon benn war na koo yokk war na koo yokk war na koo ak ca fi mu ci àgg ci jumaa ji àgg ci jumaa njëriñ keroog bi Cheikh bi Cheikh Moustapha tegal tegee eh, gasee fondation bi am na le 4 mars 1932 mu gasee ba pare si ma daal dugg ci biir fondation bi yuuxu ne jumaa ci kaw wala mënu ma ci suuf waaw jumaa ci kaw wala mënu a ci suuf kon loolu li ci def dafa konti jumaa njaarim jéen waaye yi mu ci nag waaye nekk ab conseil Cheikh Moustapha nga xam ni moom bàyyi Cheikh Moustapha waaye jàppewu ko bàyyi moom ab sëriñ la ko jàppe léegi loolu ab taalibeem waaw lépp lu Cheikh Moustapha dugg kenn du ko ca jiitu te kenn du ko ca man mu nekk ab exemple ba léegi ba léegi moom lépp lu ñu ko seen kenn du xaar ko la woo. dëgg la kenn kenn ndax pastéefam. ndax pastéefam ak ak ak ndogoom ndax ndax raay bi firnde la ci. Mm. avant kon jumaa ji raay bi moom bokk na ci mbàkk mbàkk yi nga xam ne ñu ci ëpp luñ joxe. dëgg la waaw. ci taxawaayu raay bi ci taxawaayu uh-huh. fi ne maanaam moom uh, tubaab bi. bi waxee Cheikh Moustapha uh, nombre bi koy bi koy gas muy uh, junni nit maanaam junni nit ak juróomi téeméer. te uh-huh. doon ñuy xiiboon. buñ doon ñu xiiboon ca ndawal la ñuy lekk ak ceeb ak diw si menu bi ba mu tànnee juróom tubaab bi dañuy léegi moom balaa jël kenn da koy vérifié mais moom man moom téeméer yi mu tànnoon dellawuñ ca kenn ndax ndax seenu seenu mag ak seenu dëgër ak seenu dëgër nga xam ne ñoom kenn dellu maanaam dellawuñ ca kenn ba raay bi àgg mu ànd ak moom ci jumaa ji ba ni Cheikh Moustapha bëgg ku ko jàppalee ni mu jàppalee ko noona ba tey Cheikh Moustapha lu mu réalisé loxoom si mënu ba dee ci biir ndeysaan mu kon noonu nag ba li si mënu bay wàcce liggéey am mm. en 1933 Cheikh Moustapha taxaw ko moom it nag na nga ko taxawoo woon si mënu bay mi ngi wàcce liggéey fii ci Dendey mm. di wàcce liggéey Cheikh Moustapha yëg ko waxale ni kat tey dafa mel ni tey boo doon mbaar mi ay keno la tey daa mel ni benn keno moo dem surtout moom ci moom ngir ngir moom fi mu ko fare woon fi mu ko fete woon waaw ci taalibe fi mu ko fare woon ci waajur fi mu ko faree woon ci di ko conseillé mais fi mu ko faree woon ci joxe alalam joxe ay ay ñoñam ci li Cheikh Moustapha soxla. dëgg la waaw mu yebal ñu andi ko Touba wax si ndàkk bi su ma taxaw bi ñu ko taxaw ba noppi Cheikh Moustapha seere na seere nee na de day kim ñàkk day mel tey mi ngi doon a ñàkk bàyyi ngeen taxaw ba mu ko doon taxaw tey day mel ni mi ngi doon a ñàkk taalibe ngir nam meloon ceeb taxawaay waaye moom it nag daal di fiy jógee nag dem déedéey si mën na mi ab taw mooy si Ibra Xujja mu samp ko wax ni képp ku toppal si mënumbe bul génn dem fenn li fi nekkoon mi ngi fi man ak moom waaye sëñ Ibra Xuja dafa teel a nelaw parce que ci même at moom ci la nelaw moo tax sëñ Maam Mor moo ko ah, non si sëñ Ibra Xuja mooy taaw si mënumbe waaw léegi bi mu fi jógee waaw sëñ Modou Xaban mi bàyyi sëñ Modou Xaban waaw moom laa bëgg a wax waaw sëñ Modou Xaban sëñ Mouhamadou Xaban moo wuutu sëñ Modou Xuja moom moo moo ibi sëñ Modou ah. ah. Xubé 1933 kon moom dafay gën moo gën a yàgg moo tax waaw moo tax léegi ñu xam ko ah. léegi Cheikh Moustapha ànd ak ci moom ci sëñ Ibra Xuja sono ba wàcc liggéey mu sampaat sëñ sëñ Modou taxaw taxawaay mel ni la sëñ mel moom moom doon def mel ni da koy ful. dëgg la ci am mbay ndax foo tey boo demee Dendey xam nga fi dañuy waxoon ab bâtiment akom sax mais boo demee Dendey ab seko nga fay fekk seko. seko seko. seko mooy lan moo mooy mooy lan. seko mën ngaa wax ne tey ci boo demoon ci dëkk àll yi. Hmm. tubaab bi man man la fay def li muy jënd ci gerte yëpp ci tund wa. fa lay mën a dem fa lay mën a rek. Hmm. nga xam ne boo koy xool da nga naan ay 30 mètres ay 40 mètres. lay guddee la yaatoo ay 10 mètres. am na ci dëkk cosaan yi ba léegi sax yoo xam ne daf fay am. même ba dënee ba fa demee da nga fekk ñaari seko yoo ne yii pepp lay def yii gerte ca la ci la koy def waaye yéen ku fi nekk seelu xadim waaw xam ne ba léegi njaboot gi loolu la ñuy ba léegi ba fii ba fii ñu ak yow nii hmm. ginnaaw bi suñu xabaan jógee sëñ Abdourahmane moo ko wutu ginnaaw sëñ Abdourahmane sëñ Abibu léegi nag sëñ bi fi jógee nag ndax sëñ Manoumbe am na ko ñox soxna Mbakke waaye moom soxna la am na ñeneen ñu dund nag mais juróomi xalifa yi la am bi mu fi jógee nag sëñ ma mor sëñ ma mor mi nga xam ne mooy tawam sëñ Mourou Xabaan moom bi muy toog ci xalifa sëñ Mourou Xabaan booba demi suñ suñ suñ ma ndumbe ñi ngi fi ku ñox sëñ bi sëñ ma mor nelawee ci la sëñ Abibu door a nelaw sëñ Ibra Xujje toog fi nga xam ne doomu sëñ Mourou Xabaan la nga ne moom lañ tuddee sëñ sëñ sëñ Ibra ma doon tawam sëñ ma ndumbe moom fi ne moo toog te toogaayu sëpp ak toogaayu moom maanaam moom moom moo wut mooy sëñ bi njëkk bi njëkk wut sëñ ma ndumbe waaye dañ ko wóoti nag sinor xabaar nga xam moom ñaari xilaafa la ko dëgg la waaw te fi maa ñëwee nii fii ñuy indi addee ji ka seet Sëriñ Muxtaar ba fii ñu waxee nii nag su juróom ñoo ko doon ci ay doomam ak benn waaw fu nekk nii waaw juróom juróomi xalifa la am ak benn sët muy si Ibra Xujja mi fi ne yàlla fa yàgg ci wet dëgg la moom it nag nañ melam ci mbay la muy joxe addee ci pepp ba fii ñu ajow nii gisuñ ko fay jox dëgg la loolu moo waral comité d'organisation Magal Daaru Xudoos delloo njukkal Serigne Manoumbé ci taxawaay bi Serigne Cheikh Fall mm. Taïf wax léegi mm. euh, dégg ngeen taxawaay bi nga xam ne wax na ko mu am ko ci Cheikh Mamadou Moustapha mm. kon kay yàlla na ñu def exposition bi nga xam ne def nañ ko ci dunduk Serigne Manoumbé ngir dund la gu am njariñ dund la goo xam ni bu jamono tollee fii si na koo delloo si nag mm-hmm. euh, war a wane Serigne Manoumbé moom mu nekk mm-hmm. modèle boo xam ni mm-hmm. euh, modèle la ci murid bi wane ni am murid maanaam moomul dara dara moomul jamono ju nekk sëñ Tuubaa rek la war a xool mhm. euh, loolu daa loolu mooy taxawaay si mën bi ndax mhm. tey da ngay gis ni mhm. nit kenn day topp ak kër ba euh, sëriñam jóge fa doomam nekk fa waaye day mel ni euh, ngëm ngëm gëmoon day mel ni day wàññiku ndax gisatul waajur wa waaye ñoom jàngale nañ ni boo nekkee sab sëriñ ba mu jóge fa te doomam nekk fa Euh, nga ànd ak moom ànd bu raw na nga ànde woon ak waajuram loolu ñoom daa mel ne jàng ko ci nekkuk Serigne Manoumbé mm. ak ak ak Serigne Modou Moussa daa mel ne taxawaay bu mu am ci Serigne woon sax Serigne Touba waaw bu euh, ni mu woon ci jamonoy sëñ bi mm. bu Serigne Modou da ko daan lim mm. ci jamonoy sëñ bi bu Serigne Modou Moussa amutul lim lu ma am da ko ji xëpp kon loolu mooy liggéey bu barkeel boo xam ni euh, jamono ju nekk dañ daan gis ni Serigne Touba moom du fi jóg la murid yi war a gëm xam ne Serigne Touba newul ko fi jóg gannaaw dafa jóg nag dañ gëm kon ku ko fi nekkal ku ne ak kër goo mën a nekk war nga ne di góorgóorlu ba la doon def benn nga def ko fukk loolu lañ déggee ci waxtaan wi xam naa ngir jeexal rek ñu wax la kàddu yi nga xam ni moom ngay tëjee jotaay bi message bi nga xam da nga ko lancé mboolem ñi nga xam ne ñuy seetaan ndax euh, ma faatamal bisri ñu am na ñu nekk ci ba ci Amérique ba tey jii sax am na activité yoo xam ne ñu ngi am ca France ay mbokk taalibe yoo xam ne ña ngay màggal guddi gi fu ne ci àdduna ci àdduna bi ci bis bi euh, di màggalu Daaru Xudoos daanaka fu ne ci àdduna bi ñu ngi ko fay màggal euh, euh, bu dee ci Angleterre bu dee ci Italie bu dee ci Espagne Europe yëpp France ba ci Amérique ba ci Afrique Cameroun foofu yëpp daanaka ñi ngi topp télévision Fado Bichri ñu bëggoon bala ngaa tàggoo rek nga message bi nga xam ni. dañ ko lancé mbokku jullit bi. waaw jërëjëf sëñ bi xam message bi ñu lancé woon damay wax ne daanaka rek ñun saa bu ñu defee rek maanaam lañ ci jublu mooy ñaar bi ci njëkk. muy kóllëre gi mu soxoon Cheikh Moustapha ak Cheikh Khadim waaye nag ñu woon ko ndawi jamono pour ñu xam ni kat ab royukaay dëgg-dëgg ku bëgg a nekk ab murid sadex wala nga bëgg a nekk dëgg-dëgg sëriñ da nga jël da nga jël kooku exemple ndax tey boo demee ci sëriñ si dañ koy mën référence dëgg la mais boo joxee ci taalibe yi ni mel bi nga nekk Cheikh Khadim ak bi nga nekk Cheikh Moustapha kon day nekk taalibe dëgg-dëgg ci exemple bi mooy ñoom pas-pas bi ñu amoon mooy dañoo gëmoon ni Cheikh Khadim jógu fi ba bi Cheikh Moustapha teewee dafa gëm ni tey jii Cheikh Xadim gën a nekk ñun jamono murid yi léegi nag li li li liy suñ mbir mooy day mel ne dañu xool fu gën a xumb dëgg ak fu gën a wéet mais mais pas-pas ba moo des ñoom nag pas-pas boobu ñu ñu doon doxee rek lañ bëggoon lancer nit ñi pour ñu xam ne ku bëgg li fi nekkoon ba tey mi ngi fi mais pas-pas bu koy may doomu aadama yi moo bëreetul mais si mënum yi ab exemple la ci ñu jàngaat ak dundam jàngaat ak jaamu yàllaam jàngaat ak tabeem waaye jàngaat ak taalibeem nga xam ne kon loolu moo loolu moo jubluwaay bi pour murid yi gën a amaat pas-pas ba mag ña amoon parce que boo gis la mag ña bëggoon la bëgg mais pour mu am ko nag il faut mu jaar fa mag ñi jaaroon kon il faut ñu leen di andil mag ñooña nga xam ne léegi comme li ma tàmbalee muy crise de valeur amu fi ñi ñu war a roy dëgg-dëgg mi ngi fi mais dañ leen dañ leen fa bàyyi dem di roy ñeneen ba pare bëgg li mag ñi bëgg loolu la moo a def ba bëgg li li mag ñi bëgg waaw ndax xam nga daa wax ni fadaaxatan wa raaxatan lam yusira isirmu ni lam yakunu sabira nee na loxoy neen akum noflaay ku bëgg a jariñu da nga koy bàyyi ndax waxaat ni nabaxatukum ala kajin bada lii xabla an reda mu abada ah. dénk naa leen yéen ngeen sonn yéen murid yi ndax sama xéwal yi ma am laa dama koy am damaa takk sama ndigg sonn door ko am donc ku bëgg a jariñu da ngay sonn ku bëgg a def loxoy neen akum noflaay ba pare bëgg a jariñu mais loolu du sotti loolu nag moo tax moo tax nag si mbir mi ku xool la mu nekk diggante ak sëriñ bi diggante ak waajuram ba ci Cheikh Moustapha li mu am loolu moo ko may ma ne kon mur yi ñu toll képp ku bëgg a jariñu wala nga bëgg na mag ña amoon nga am ko da ngay teg si ndigi def def na ma ngi defoon mais kenn mënu ta toog ci am noofulaay ba pare di jariñu kon loolu la si jubluwoon ñaari bayit suñ ma kenn lañ ci rek mais mag ñooñu koo ci jël koo exemple la ci anam boobu kon ndaw ñi nañ gëstu mag ñooñu man ñi àndoon ak sëñ bi àndoon ak mm-hmm. parce que moo gën ñuy jëgaane ay naar muy un moo gën ñuy jëgaane ay nasaraan ay Paul Marty ay ñu kenn xamut ah, ah. kon ñooña ñun suñu référence ñun ñun suñ mag ñii la ñoo jëte suñ kanam parce que yaakaar naa li ñu naan mm-hmm. les les les les grands penseurs. waaw ñi nga xam ne ay ay ay ay ay philosophe lañ. Uh-huh. ñooñu ñun am nañ ñu leen gën a nekk ay philosophe. bu wér ndax bi ñoom jumtukaay jafe. bi xam-xam jafe. bi lépp jafe. Mm-hmm. ñoom lañ fexe woon ba. Mm-hmm. xam-xam mat. jumtukaay yi manqué. ñu fexe ba taxawal liñ taxawal. ca xam nga sax ni sax dafa bokk ci ki nga xam ni nit ñi dañ ko gën a bàyyi xel muy Paul Marty. Uh-huh. te Paul Marty moomu. maanaam moom ni ko ñu ñi bàyyee xel moom xam nga ab tubaab lu koy itteel ba bind ca. l'islam au Sénégal bi mu bind te danaa wax na sëñ ah. parce que xam nga euh, boobu mi ngi ko bind. Ah. en 1854 ba 2012. Ah. dafa def politique et marabout au Sénégal. dans le moo ko bind ca biir nag ca la Pomar de benn setup setup boobu laa wax ni ca la def benn témoin Cheikh Moustapha nga xam ñun léegi ñun ñooñu faa. ñun ñoo ñoo wëlbatiku faa ñii waaw. ba def ba def sa témoignage ca témoignage koy def boobu Cheikh Moustapha il est à l'âge de 26 ans moom Paul Mar. ak juróom-benn. waaw li mu ci bind dañuy était de 25 à à 26 ans instruire intelligent plutôt timide. mu ne kii xale bu góor la ba am ñaar fukki benn ak juróom ak ak juróom mais ku yeewu la mais yaru la mais ku am xam-xam la. nga baal ma ma rappelé livre boobu mi ngi nekk bibliothèque française bibliothèque nationale française uh-huh. maanaam Europe bibliothèque bi gën a rëy ci France fa la livre boobu nekk moom tudd l'islam au Sénégal waaw Paul Marty moom mu ko bind moo yilifoon réew mi entre 1900 ba 1920 1824 ba 2012 loo def 1824 ba 2012 waaw la ne marabu et politique et marabu ah. moo ko bind Danselot ah. mais ci biir nag ci la Paul Mat def benn setup témoignage def témoignage ci sëñ ci ci ci Cheikh Moustapha ah. def ko sëñ Mandoumbe ak ñeneen ak ñeneen dëgg la ku ku ku ku ko seen daram léegi daal di def témoignage Cheikh Cheikh Moustapha daal ni ci jamono bi mu toll nii ah. lii muy def nii day jeexital ci moom ba tey ku ko ba tey ku ko jige sax loolu yow dana la ko wàll kon loolu moo tax te sax loolu la fi ne fa mu tàmbalee woon dafa wax naan maanaam bu fi sëñ bi jógee ak karasore bi am maanaam moom loolu tàmbalee woon moom daa bindoon ni bu fi bu fi bi jógee yoonu ma def faaw ma am ab rëg-rëg parce que sëñ bi daa bari ay leet naa xam nga ñoom ñu waxoon ay leet naa maam Thierno ab leet naa la du mu ko ko jiitu maam Cheikh Anta ab leet naa la sëñ bi am leet la waaye daal ne bu loolu amee rek faaw ma am kër kër waaye daal nag waaye Cheikh Moustapha de nga xam ne moom dafa mel ni tey moom tey dafa tànn solution daal ni Cheikh Moustapha doomam la joo xam ne bii vingt cinq ans la vingt six ans waaye ku yew la am xam la ku la ca moom fi nga loolu mu yor ku ko jege sax dana la ko wàll. waaye nag te jeexital ba nag mu ni waaye nag s'il peut être quelqu'un dans notre société ça ne peut être que grâce à nous. léegi li muy yeewu yeewu ak li muy am am xam-xam su bëggee avancer société bi mënu koo def te ñun jarul ci ñoom. nga xam ne léegi jarul ci leen ñoom tudd leen. waaw waaw déedéet jarul ci ci ñoom Paul Marty. ci ñoom Paul Marty mu ne léegi bu bëggee avancer dëgg-dëgg. waaw day jaar mais loolu xaaj maam da koo tagg ba pare ah. tëkk ko mais tëkk ba ñëpp a xam ne ah. Cheikh Ousmane li a réussir réussir na ko à cent pour cent dëgg la te ñoom ko dara dëgg la léegi kon li ma ko mooy ku mel ni Paul Marty dañ koo fan mais man daa fan Cheikh Moustapha ba def ci ab témoignage dëgg kon ñun damaa jàpp ni am dañ ko xam dëgg la li am kon ëllëg yoo xoolee Angélique Danselo Ah. wala nga xoolee Paul Mart hmm. waaye ay Malcolm X wala ay ñeneen ñeneen mais am nañu ay ñoo xam ay roykat dëgg lañu muy ku mel ni Cheikh Moustapha ak man ñu àndaloon kon loolu ah. ñu def exposé bi ngir na yi ñu ma ñu jàngataat yi ngir kiis na bareel bii ak lii dugg ci yoonu murid ñu mën koo tenir waaye royaat mag ñi amaat pas-pas ba fañ ko àggale mag ñi ñoo ngi doon ko fa àggale kon jëmmi jëmmi dëgg dëgg dëgg dëgg exposition bi loolu loolu la si jub. loolu mooy njëriñ li njëriñ li. jërëjëf Serigne Cheikh Fall Taïf moom la ñu àndaloon ci ñu ngi lay gërëm xam naa lii warul yam fii ndax Serigne Manoumbe. waaw euh, ni ko waxee nekk na jëmm joo xam ni. Mhm. xëy na ku mel ni man ak ñi ñu seetaan mhm. li nga fi wax xamuñu ko woon ci Serigne Manoumbe. Mhm, dégg nañ ni jàmbaar la. dégg nañ ni euh, bokkoon na ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba. dégg nañ baykat la waaye ndax euh, Serigne Manoumbe dëgg-dëgg la mu làmbooloon ni ko waxee. xamoon nañ ko dëgg-dëgg kon euh, ni nga ko wa junjee ci biir waxtaan wi war nañ gëstu ji mhm. mag ñi àndoon ak sëñ Tuubaa ngir gën a xam fu ñu teg suñ tànk xam ni ñoom asamaan sa leen tiimoon ak suuf sa daan dox ñu mhm. fi ba léegi mhm. juntukaay yi ni ko sëñ Tuubaa di waxee yóbbuwuñ ci dara pas-pas bi rek moom lañ war a yeesalaat jamono ju nekk te xam ne sëñ Tuubaa nekkul ñu jóg Euh, ñu ngi gërëm di la sant ci taxawaay yi ngeen am ci màggal gi ak ni ngeen di feeñale xam-xam ci biir màggal gi ndax Cheikh Moustapha day nit koo xam ni maanaam lépp da ko tegoon ci xam-xam ak doxalin bu rafet te kon ñu ngi leen di sant leen gërëm xam naa ñu ànd ak waa Rési dem animation bu ko defee bu ñëwee wéyal waxtaan bi ak yeneen i incha allah euh, ba ci kanam tuuti incha allah jërë ngeen jëf صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا عبدك ذا من قمتي فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا عبدك ذا من قمتي فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا عبدك ذا من قمتي اكتب صلاة وسلاما للنبي في الآل وصحب ذوي تجنب سلم بجاهي وجاهي ما أمته يا واحدا لخما تفضلا على ذوي الإيمان بفرج يا واهب الأماني جميل أوس لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين billahi warrahmani warrahimi liman yuhibbuna kama yamhurab liwajhika alkarimi wajhi faraja bila asan liman yudimuna arraja habli sawil imani wal islami xayra busaaraatin bila malaami mahawta durra abdika alxadimi yaa xayra man yajuudu bittaqdimi rafaata sayo ilayka yaa sakoor بكرم ومنة وبسكور بعاقوتك الكريم أبله إجابة يا من محوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بخريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراخ فتنة الذين سلموا مسليا مسلما على الرسول في حسبي يا من عباني بسول Cheikh Moustapha santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Moustapha tëddal nang nelaw yaa Moustapha ñépp mokk nañ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 ña da xiiru ak ñay mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Mustafa ña daa jabar ña daa xaatima ña daa luxus yalax nañu seen xam ya far toppi Mustafa si gël te weytoo madru yi tuub nañ ci yow bu wér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 ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy ndeyaar doon Mustafa walaf nee na woote yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa Mustafa walaf nee na am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy Mustafa la Seex Bamba noon waa mi yàlla ma wooteloo ku dib dof na tuug ni xil wa dew fekk Mustafa Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaag siqiya cuuja kulluhum borom gamb baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardi lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi Musa bi Mustafa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa Mustafa ku fay nag jikkoom war naa si Mustafa cheikh moustapha géeju ngëneel waaju ak duy ku bay xondooj yaa tey ma ngay ndoxom maa ngi wër tuuba batum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi moustapha ma nga yeesalaa tuuba bi tëjdiidi diinihi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 bada batinin hinayatuhu qabla alwilayati mustawa kilay Mbàkke waa Kokeeg Luga ak Ndaam dikk mbokk yi gannaaw animation bu am solo boobu euh, ni ñu ngi woon ci waxtaan bu am solo ak Serigne seex Fall Taïf gannaaw buñ koy yewee mu dem ci waxtaan bi nga xam ni moom lañ doon waxtaanee Serigne Manoumbe ci digganteem ak euh, taxawaayam ci jamono yi nga xam ne sëñ bu mag baa ngi fi waaye taxawaayam gannaaw sëñ bu mag bi ci digganteem ak Cheikh Moustapha looloo tax ren jii ñu duppe ko exposition bi nga xam ni ñu ngi koy def fii ci. daarul xuddos bërëb bi ñu nekk nag mbokk yi ñu fi màggale màggalu daarul xuddos xam ngeen ni Serigne Touba fii la seente woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xal wotoom boobu nga xam ni defoon na ko euh, ci euh, daal di jaayante ak boroomam ngir war a dem ci liggéeyam bu bu tedd boobu barab boobu la ñu nekk moo tax ñuy am mbégte ci waxtaan wi nga xam ni euh, ñu ngi koy waxtaanee jëmmi Cheikh Mouhamadoul Moustapha Cheikh Mouhamadoul Moustapha al Karim nag euh, buñ ko tuddee xel dina dem ci fit buñ ko tuddee xel dina dem ci njàmbaar buñ ko tuddee xel dina dem ci xam-xam ndax xam-xamam bi mu am euh, xam-xam la bopp waras na waxtu wu nekk ñu ñu ñu ci waxtaan moom. képp koo xam ni yor nga jiite nga mbooloo war ngaa jàng ak dundam war ngaa toog ñu jàngal la képp koo xam ni yilif nga kër moo xam kilifa diine nga war ngaa toog ñu jàngal la mu Moustapha ana nan la yore woon li mu yoroon ndono lu rëy loolu nan la ko sàmme woon loolu jar na ku yor ku doon kilifa diine ku ne nga wéet ci nekk ñu jàngal la mu Moustapha nan la sàmme woon loolu nan la ko yore woon ba nga mën sàmm euh, li nga xam ni mooy noonu liñ la dénk yaakaar naa ni képp koo xam ni njiitu réew la sax man defe naa ni war naa jàng Cheikh Moustapha ndax moom politique bi mu doon mane euh, dafay politique bu doy waar ci jamono yu jafe mu taxaw ak pëstéefam ak taxawaayam ak xam-xam bi mu làmboo nit ku ñuul koo xam ni jële na braay diggante njaareem ba Touba. mësta am ci benn histoire histoire xamu ko euh, dañu wax ne sax nit ku weex koo xam ni def na lu mel noonu moom kese te état dimbaliwu ko mbaa benn organisation loolu monsieur fu koo xam kon Cheikh Moustapha euh, def na lool histoire mosu mooy moom kese moo ko mas a def te boobaak léegi gisaguñ ku ko defaat loolu di ndono loo xam ni réew mi war na cee bàyyi xel euh, ñi ñi nga xam ni ñoo yor wàllu état war cee bàyyi xel ngir di euh, fësal ndono loolu nga xam ni euh, jëf jooju nga xam ni mu Moustapha def na ko te loolu di histoire boo xam ni Sénégal waroon na tey di ko ndamoo di ko euh, tiitaroo waaye di ko wane fu ne ci àdduna bi ngir loolu kenn xamu ko ci kenn ko xam mas na ko def ku dul mu Moustapha ci biir loolu ñu ànd ak Serigne Koso Sey agsi na léegi di sunu naataango boobaak léegi mu nekk suba ak léegi gis ngeen jotaay yu am solo yi nga xam ne àndoon na ko ak yéen te te doon waxtaan waxtaan bu am solo ci dundug Cheikh Moustapha Serigne Kosso maa ngi lay nuyu di la jaajëfalaat euh, Serigne Cheikh Fall Taïf wax waxtaan nañ ak moom solo woo xam ni euh, mi ngi waxtaan ci dundu sëñ Manoumbe maanaam sëñ Manoumbe ren jii moom la ñu exposition bi def fii ci gannaaw ngir taxawaay bi mu amoon ci jamono yi sëñ bi ci wàllu mbay ci wàllu addiya ci wàllu tarbiya waaye ci jamono yi Cheikh Moustapha dafa fula dafa ful li nga xam ni moo doonoon euh, li mu daan def ci jamono yi sëñ bi loolu defe naa pas-pas la defe naa jëf la joo xam ni euh, ñëpp war nañ ca bàyyi xel jamono ji ñu toll war nañoo delloo si pas-pas yooyu defe naa ndax pas-pas amatul pas-pas yi ñu ngi gën a ruus euh, naka la jamono ji taalibe yi war a jànge dund ku mel ni Serigne Mamadou Bess pas-pas bu toll euh, jërëjëf sëñ Maam Thierno ñu ngi nuyuwaat mbokk yi nga xamante ni ñoo topp seen télévision ma fàttali Bichri rawatina fii ci Touba Darou Khoudoss euh, maam Thierno indi nga lu am solo <coughs> te maa ngi ko doon junj léegi <coughs> mooy tey bu nu jàngalee kenn ci njabootu Serigne Touba gi am ay jikko yuñ ci war a jële euh, jikko bii nga wax nag dafa mel ni mooy doomu aadama waaye dafa mel ni mooy lislaam ndax inna al umura kulluha ala al aqaidi mbir yi yëpp ñu ngi ci pas-pas yi fi ne nit li kulli janbin masrafun faw nit am objectif boo xam ne moo ko tax a jóg li ko tax a jóg nag dara mënta tax mu am ko lu am pas-pas bu ànd ak bëgg ak yéene man man dama defee ni sax est-ce que est-ce jamono ji du pas-pas yi moo wàññi pas-pas yi daa mel ni day gën a wàññi waa xam nga pas-pas yi te daa ni bari na lu ko yolomal maanaam li koy def mooy bi bi ñu nekk mooy environnement bi ñu nekk mm-hmm. dafay mel ni nit ñi dañoo fàtte li mag ñu doon dunde xam nga wax nga ko léegi sëñ Mandumbe kenn du ko wax wax continuité bi mu doon def ci kër sëñ Touba te tuddoo xetaab bu mag bi maam Thierno defan ci kër gii ñu jàkkaarloo bi borom Touba làqoo sunuy bët borom Daaru Muxti moo dajale njaboot bi fii ci bayti gii waaye bokk na ko rek la gën a soñaat suñu lume daf ko ne yow de ku la xam ci kër sëñ Tuubaa bàyyi di indi di joxe addiya lañ la xamee. dëgg la mu ne ko waaw mu ne ko loola na nga ko wéyal. Mm-hmm. kenn ku ne ba ci maam Cheikh Ibrahima Fall wala yoon lañ la xam mun ko mun ko na nga ko wéyal kon foofu la nga koy gisee mooy maam Cheikh Ibrahima mosut xool toogaayub sëñ Tuubaa déedéet mosut xool toogub sëñ Tuubaa. lim ko san moom li nga wax nii uh-huh. moom la jëmm ji fi toogal léegi wax ni Paul Marty li mu wax mooy def ni sëñ Touba bu fi jugee problème dina am nee na ñu ko lu tax mu ni dafa am ay leer naa yoo xam ni ñoo fi nekk nee na maam Cheikh Anta kenn la ci leer naa yi nee na sëriñ Mënumbe kenn la ci borom daaru kenn la ci nee na leer naa yooyu nag bu fi sëñ bi jugee euh, problème dina am ndax ñooñu kenn ko ne da bëgg a wut sëñ Touba waaye gis naa doomam joo xam ne nag moom mi ngi toll ci vingt mm-hmm. waaye xel ak jikko ji. ku ko jege rek dana la ko wàll. xam nga kon ñoom bëgguñu woon doon dara. si déedéet bëggoon boo gisee foofu da gis ni borom daaru moo amti. dëgg la dafay jàngale lu am solo. maam Thierno borom daaru yéem na ma lool ba fu ñu tuddee nit ku baax sama xel dem ci moom xam nga li tax borom daaru mësta nangoo bëgg a feeñ ci dara. looloo waral bëriwul téere yu mu bind. mësta nangoo xam dara. ñaari bind la ma sa bind mooy ba muy dem ci Serigne Niang ak la mu bindoon jamono ju naqare woon ba mbas jooje waaw ñaar yooyu lañ xam lu mu bind te wax naa ne damay faral di wax ne boo bëggee jàngale maam Thierno mooy ki nga xam ne doonte thème bi da koo jóg waaye fas-fas a jàngale fi muy ne euh, maam Thierno mooy ki Sëñ Tuubaa doon misaal man talabal wusulil jalil fal ya'tasim bi sunnat rasul jikko yàgg ko cirib ni ki ma leen daan wax mi ngi nii doon jëmm nga xam ne yooyu mooy fas-fas yi mag ñu doon dund benn bi mu ñëwee loolu moom rek moo placé woon ci def ko ndax jamano boobu moo fi mag doon rek Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne moo ñu rëkk ci moom waaye jàngale aw yoon xam la nit fii lañ war a nekk. dëgg la waaye mag ñi nag Sëriñ Ceerno doon dundee pas-pas. Mhm. boo demee ci Irwa u Nadine mhm. bu Cheikh Mamadou am na fu muy jàngale alhimma. itte baatul himma mooy itte. Mhm. te xam nga. yoonu rabbi daanaka yoonu yitte la rek wala turabbihim bi daal si fa xat dëgg la loolu kon ñoom ndono loo xam ne ñu ngi ko gën a wàcc Sëriñ Tuubaa maam Thierno Soxna da ngay gis ne sëñ Maodo Lamine Diop Dagana wax na fi ci mo loo xam ne te mooy pas-pas moo tax xasida gii di Mafaatihul Bichri boo demee Sëriñ Tuubaa dafay ñaan pas-pas juróomi yoon yu bokkul wajal xaqaa'idi munawwaratin wajal bi kulli saa xayraat mm-hmm. nga xam ne kon xam na ne pas-pas mooy li nga xam ne mooy maanaam mooy wommat nit ki jëmee ko ci ak mbaax. dëgg la waaye waaye mooy wommat nit ki jëmee ko ci ak mucc. Mhm. yaa ngi dégg waaye mooy wommat nit ki ba objectif bi mu bëgg mu am ko fi mu ne ki nga xamante ne daa bëgg a def dara daa bëgg def dara même bu amul pas-pas mënu caa jariñ xoolal bi bi muy jàngale fa pas-pas dafa wax ni euh, Serigne Touba daa am lu mu digle ci bu njëkk ba nee bi ñu ko diglee. mag ñi naa moom de lu mu digle mëneef na waaye nuñ ko def mel ni tey mu ne lii kat ak garab la waaye damaa bëgg ñu ñu ma ko waaye bëgguma ku laal dara ci suuf mag ñi di xalaat waxoon nañ ni jotaay booba Serigne Dame Abdourahmane Lo fekke na ko sëriñ ma sàmba Diop Sam fekke na ko ku mel ni Serigne Darou Hassane Ndiaye fekke na ko wax nañ ne maam Cheikh Ibrahima Fall daa fekk booba mu ne ci àll bi dem taxani wuti am mat waaye wax nañ ni ci pas-pasam bu dëgër moom maam Cheikh bi mu ñëwee ñu laaj fa lu ngeen def dañu ko ban bañ gaaral ko ni ko sunu sang bi de moo moo digle xam nga ñoom ni ñu daan jëfantee ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam te saxaaba ya noonu lañ toppoon Serigne Touba wa ma amruna illa wahidun kalambil basar maanaam lépp lu mu digle xafa xippi xam nañ ne mën na mënas na maam Cheikh Fall noonu la daan jëfee bi mu ñëwee ci pas-pasam bu dëgër akuk dogoom mooy azmu daf ne ah sama sang ba de lu mu digle ma neef na ko moo la mag ñii teewul kenn ko ne aman nga pas-pas moom borom daaru waaye dégg def booba maam Cheikh fa la ko yàlla wërsëgale wax na ni bi mu ñëwee daa daal di kottu garab ga foofu maam Cheikh dafa am ay waar lu fi xew loo xam ne moo tax lu bare bare may nettali pas-pas boobu bi nga xamante ne yàlla dogal na mu kottu garab gi dañoo wax ne yaram bi daa tàmbali di xotti ko di dagg di xotti ko di dagg waaye maam Thierno wax nañ ni Serigne Daam Abdourahmane loo nee na fi mu toog di jàkkaarloog maam Cheikh Ibrahima Fall waaw gis na deret bi nga xamante ne mooy nàcc dégg yi di ko dagg gis na fu aw deret génn rek ayat alxuraan ma nga daw di fa dugg Serigne Daam xoolal Serigne Daam gis bu rëy bu xóot bu jan bi nga xamante ne suñu borom mbaaxe na ko waaw Daam nag euh, maanaam duñ wax ne loolu jombe na ci moom déedéet ci moom li mu def ci alxuraan ni ma koy waxee toujours kenn mus ko def kenn mus ko def benn jaam bu ma sa def lu li sëñ def ci alxuraan daa jaayante woon ak sëñ Tuba waaw ci ñaari rakk ni ko nga warlul ma sa benn taalibe ci sama rakk yii du dem sa mu jox ko ñaari rakk guddi gu nekk mun naa fi laal mm-hmm. am tawfiix it njabootu borom Tuba gépp moo leen jàngal mm-hmm. sëriñ daam njabootu Serigne Touba gépp moo leen jàngal. waaye suñ ko so mbokk yi ni ñu ñi euh, ngi si ñi ngi ñi ngi topp émission bi wax naa leen ni leen ngeen yónnee seen i message man ngeen yónnee sax seen i question tey jii sëñ Kosso Seye euh, lépp loo yónnee rek incha allah man na ci tontu incha allahu taala euh, ndax ni ma koy waxee saa yu nekk du ma deñ di ko fàttali ñun ak yéen ñoo bokk émission bi. te xëy ñoo leen toogal fii ci jataay bi kon man ngeen yónnee seen i message seeni i participation ndax gis nañu seen taxawaay ci topp télévision bi sëñ Gosse Seye euh, ñi ngi waxtaan ci pas-pas ma bëggoon nga dikk ci pas-pasu sëñ Mourou Moustapha sëñ Mourou Moustapha uh-huh. maanaam pas uh-huh. daa mel ni benn mënu waaw euh, euh, day la ma waaw pas-pas bi ma amoon uh-huh. ba jamono jooju kii gën a rëy yoon wi. ki a rëy dafa si yoon wi aguma jox. loolu fi la pas-pas yam waaye maam Thierno pas-pas a tax Cheikh Moudou Moussa Karim jële sëñ Touba njaarim ko ndax foofa foofa lu dafa am lu fa ne loo xam ne mat nay leeral borom Touba ak demam mësta ump tubaab bi waaye azm dogu la sëñ Moudou Moussa am mooy bi mu ko tubaab bi ne njaarim dafa wax ne. faw moom tubaab booba da ko wax ne faw mu yëgal ko ku makka nekk ndar waaye da ko ne suñu Moussa da ko ne ak ku ko mën a yëg du mën a ñàkk ku tedd ki moom dem Touba te la daal di jóge moom daal di jox ndigal Serigne Bassirou mu àndal mu indi ku tedd ki te loolu na nga xam ne bokk na ci ne ko Serigne bi digalal mooy na ko indi Touba te xat du damm yaakaar naa loola def na ko waaye man cer li tax nga xam ne Serigne Moussa pas-pas rek moo ko mayoon mu indi yoonu fii xoolal damay wax ne jëmm ju toll ni sëñ Touba nga xam ne nee na sëñ Touba moo wax ne ñett ma xam te duñ ma waxtaane kon ku dul yàlla xamoo sëñ Touba dafa wax ne sunu borom subhanahu wa mi ma bind moo ma xam te du ma waxtaane euh, tubaab bi nga xam ne da doon sama noonu jamono yàlla boole ma ak moom xam na ma waaye du ma waxtaane ak bi faatu ba fanaan ci bàmmeel xoolal jëmm ju mel nga xam ne maanaam maanaam wa yaxluqu maa laa taalam mooy sëñ Tuubaa mooy yàlla dina bind loo xam ne kenn xamu ko xoolal ku noona boo jikkee ba yàgg ñun la yaa wuutu sëñ Thierno ndax waruñu woon a séntu ni ndoona li rëy ndoona li rëy ndax waruñu woon a séntu ni bii pas-pas day kii wuutu sëñ Tuubaa lu gàtt gàtt dana am juróom-ñaar fukki wala juróom-benn fukki waaye boobu seex Moustapha Karim ñeent fukki at la ñeent fukki at la waaye yor yoon wi xat damut sëriñ Touba bàyyi fi ak njaboot gu ndaw maa ngi tuub ci ni ma ko war a waxe kon mu ladd ni leen lool bokk na ca rek ñu gën a siiw taxawu leen taxawu leen mooy mottali seenum njàng ñi mu yóbbu leen tindoo di Serigne Saliou Mbacké ca la bokk Serigne Abdoulaye ca la bokk Serigne Chambou ca la waaye ba ni mu leen andiwaate fii tey di kër sëñ Souhaïbou di Daaru Rahman dem jële sëriñ Abibu Mbàkke imaamu Touba jumaay Touba mu jële ji ko Mbàkke Kajoor indi ko nga xam ne booba Touba mu jële di université bu mag bi ndax ki ëpp xam-xam daanaka ci réew mi. ah te loolu ndigalul sëñ Touba la woon. ndigalul sëñ Touba la sëñ bi digaloon Cheikh Moustapha. Uh-huh. ni ko sëriñ Abibu. waaw moom uh-huh. sëriñ Mbàkke Kajoor na ñëw dellu si Touba di jàngale di jàngale xam-xam. waaye sëñ Mourou Moussa taxawu ba ndëgalool sëñ Touba loola. da nga xam ni sëñ Gaynde Fatma Gaynde mhm. ak Serigne Mbacke Madina ñoom ñooñu Cheikh Moustapha ñoom la ñëkk a jox sëñ Abib mhm. waaye yàlla fay na nag yàlla yàlla fay na sëñ Mourou mooy Gaynde Fatma mi nga tudd léegi borom dogu bu rëy ga borom borom al itihaadu quwwatul mhm. borom wa taawanu alal birri wa taqwa ah. mooy ki nga xamante ni boole nit mooy ki nga xamante ni def def synthèse. sëñ Mourou Moussa bi mu làqoo ba am ñaar fukki at. la woote am ndaje mu mag daal di wax ni ndax sëriñ Mourou Moussa bi mu fi jógee léegi xam ngeen sama bëgg ñu ne ko déedéet mu ne am nag bëgg nag tey laa leen koy wax waaye nag sama bëgg mooy damaa seet yoon yi jëm ca yàlla yëpp waaye gisuma wenn yoon wu ci gën a gaaw daayira nee na ma jël daayira nag andi ko war leen ko andil. andi kenn yow daayira waaye maam Cerno loolu maa ngi koy laaj bi de mboolem ku ne ci daayira mooy dafa wax ni daayira bi ma ko suñ borom joxee muy yoon wi gën a àgg gën a gaaw ci àggale nit ci yàlla daan na fun fi sa sa yàlla boole naag daayira baag lu koy aar di ko wattu ci ak yàq ak yu ni demee lépp lu nar a yàq daayira ba loolee yàlla boole daayira ba ma ngay rëbb kooka te bala ko bàyyi da koy jàpp te ba ko jàppee da koy rey te bu ko rey da ko yóbbu sawara daa la teg wala yeesu bi dee kon da gis ni Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma moo fi indi daayira muy ab parental mu nampal ko ci weenu boppam ba mu màgg mokkut suuf xamul ku weenu yaayam mu ne daayira ngi nii nekkale na moom te daayira bu njëkk ba kilifa yi diine yi réew mi yëpp daanaka la ci boole woon Cheikh Mamadou Fadal suñu président de baax ñun ñëpp da leen boole woon ci daayira bu njëkk da leen a boole woon ci daayira ndax lam ko tudde woon mooy al mooy bennoo mooy doole. union fait la force. union fait la force. maanaam do booloo mooy doole mooy doole. nga xam ni day teg ca suufu carte wa day teg ca suufu carte wa wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu bil ismi wal udwan na ngeen dimbalante ci ak mbaax ak ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci bàkkaar ak noonoo mbokk yi foofu da nga fi dégg ni Serigne Cheikh Gaïndé Fatma yàlla may na ko ak dégg yàlla fay na yàlla fayal na ko ku am njaboot bu mel ni sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mhm. eh, yaakaar naa yàlla fay na sëñ Mourou Moussa ah. ndax indépendance su réew mi mhm. sëriñ Gaynde Fatma bokk na ci ñi ko lijjanti maanaam Gaynde Fatma li tax réew mi naan am na indépendance mille neuf mhm. buñ ko amee grâce à Gaynde Fatma teel na yeewu teel na génn teel na jaxasoog euh, borom xam-xam yi adduna bi ngir gën a mën a maanaam euh, li mu bëggoon mu teel ko mu mot maanaam xam maanaam jaar ca loola waraloon mu am gis-gisu ni su fekkee ne dañoo yem ci diine ji rek di jàng diine su boobaa tubaab kat seen làkk wi suñu ko xamul dañuy dañuy ciy noté kon xoolal gis-gis boobu nga xam ne teel na ko am mu ne kon nii nañ ko jàng ba xam ko mu nekk jumtukaay ci ñun du soppi suñuy jikko waaye nekk jumtukaay boo xam ne danañ ko mën a euh, jëfandikoo di ko yéenale suñu dund dëgg la looloo mu fexe nag ba njàng moomu am fii ci biir waaye Serigne Mbacké Madina ki nga xam ni bu oh. xëyee balaa def dara kaamil Alxuraan karim Serigne Saliou daana wax ni Serigne Abdoulaye daana wax ni moom cër bu doomi Serigne Touba waaw jëmm jooju jëmm ji sell jooju di doomi Cheikh Moustapha ñoo ñoo taxan maam na Serigne Touba di wax ni hmm. euh, sunu borom may na ma sët yu teey yu baax yu yiw yoo xam ne dañuy yeesal sama sama yoon wi zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Moustapha taj tayidu maam Thierno mag ñi jàppoon nañ ni Serigne Touba bu fi jógee yoon wi day fay Cheikh Moustapha Karim tawu yoon wi ba mu fi jógee ñu leen day fay Sama Fadel ñëw Sama Fadel lu mu daan wax. Uh-huh. damay maam waaye bàyyi nga ñëw sëñ bi laaj ñëw yeesalaat yoonu murid teg ko fu kawe wan nit ñi ni leen da ngeen war a rampe da ngeen war a dabe maanaam andi nit ñi jox leen valeur nit ki daa war a xam boppam. Uh-huh. bu dee ci aspect wu te yoon ko xàll. waaw. doo ko xàll moo ko xàll ndax li tax moo ko xàll mooy bu doxee woon rek ku ñëw noonu ngay doxee maanaam dañoo wax ni moom nu mu doxee woon rek dañoo wax ni tegale bu jubee ca ba jëkk la ah, dëgg la te Serigne Touba dafa waajal ak njabootam Serigne Touba ak njabootam la ca nekk def defub suñu borom la nit mënu koo fàggul boppam noonee moo xam ne faddan minal wahaabi laa min iktisaabi loolu daf ko dal ci ak njabootam dal ko ci ay dëkkam dal ko ci sax ay xësi daal Serigne Touba daal ci gàttal maam ma mooy ku kenn xamul ndax li tax mooy lu laal Serigne Touba lu laal Serigne njabootam ab dëkkam ay xasidaam doo ko gis fenn ci àddina moom loola moom loolu daa bokk ci ay kawtéefam amul fenn foo koy gis ku mel ni Cheikh Gaynde Fatma Serigne Cheikh Gaynde Fatma yàlla suñu borom yokk ay leeram xoolal tey moom it yàlla ki mu ko fayee Serigne Mbacke soxna loolu nga xam Daaru Xudoos du ko fàtte mukk yoonu mu du ko fàtte waaye Mauritanie du ko fàtte ndax liggéey yu am solo yi nga xam ne doon na ko fa def waaye taxawam bu baax bi tey taxaw ci buntam mooy yàkkale na ko lépp lum mu doon def mu fexe ba yore ko yorin woo xam ne joxe doy na rek exemple ku mel ne sunu wëlëreew bopp yi Serigne Khadim Mbacké nga xam ne jàngalekatu diine la ab yarkat la nekk ca xawdul mawrud di yare di tërbiye di tarxiya fexe ba fondement bu mag bi nga xam ne moom la fi seen maam bàyyi woon saa yu xëyee samp bi nga xam ne moom la fi bàyyi woon saa yu xëyee du ko gën a dëgëral ba kenn du jaar ci ñoom di yab yoon wi loolu mooy lislaam bi loolu moo taxal yoonu murid jóg loolu moo taxal Cheikh Moustapha Al Karim dogu wan ci nii ko Serigne Touba santan waaye looloo taxal Cheikh Gaynde Fatma jóg liggéey liggéey bu rëy wax nga ko léegi xoolal wàllu politique ci Sénégal liggéey bu rëy bi mu ci def nga yëmul woon rek ci jàngal fexe ba doomu soxna yi jàng waaye dafa waxoon bañ xam seen bopp te maam na nit valeur bu ëpp solo ci moom mooy mu fexe ba xam boppam. mu jiital xam boppam. xam boppam. xam li mu peese. boo xamul boppam rek fi jaar sax du ko xam. ku xamul sa bopp sa bopp réere la. te ko sa bopp réere sa diine moo la jëkk a réere. moo tax faaw nit ki nga yar ko ci jombloo ko waaye xamloo ko boppam mu xam li mu peese loolu tey moo jur lii dama wax maam Thierno da nga wax lu am solo ci laa bëgg a dellusiwaat. mooy baatu pas-pas mbokk yi Serigne Touba pas-pas a taxan mu li'tikaaf ci jàkka ji ñu ne tey waaye pas-pas moo taxan mu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam ñu ànd mu ne ko ci laa bëgg a bokk ci jàkka ji am dogu bu metti ci am dogu bokk ci kuréel goo xam ni jiitu nañ la junni at ak ñett téeméer ak fukk ak ñett nga xam ne ñooña ñooña la yonent bi sallallahu alayhi wax ni fas ya ñu waroon doon xare seen pour riiti fas la yeneen génn ci gimiñu fas ya moog wàllu yu kaamil ñoo tolloo pour riit da ngay ci gimiñu fas yi ñu war ñooñu nag muy Ababacar Omar Ousmane Aliou ak seeni àndandoo mu ne ko ci ñoom laa bëgg a bokk xoolal pas-pas bi sëñ Tuubaa am bi da ko de da ngaa doon koo xam dama laa bëgg lool dëgg la te ñetti weer moo tee nga doon xutbu samaan waaye mën naa la koo tëgal bis dëgg tey nga doon xutbu samaan suñ Tuubaa ci dogu gi ak pas-pas bi mu am mu ne ko xutbu samaan baax na lool waaye sama bis jëlul na ko li ma bëgg daal mooy bokk sa gaay yi yant bi wax ak moom mu ne daal di koy wax ne ko euh, li koy maye wees na tey du ma nangu ko ma jam ngir kenn ndax tuur dara loon tey ay nattu lañ lay jox yu bari ñu doon la koo nangul waaye ci dogub Serigne Touba ak pas-pas bi am dafa ne luñ ma mën a teg bu ko sama ruu attanee sama jom dékku na ko te sama fit ko yóbbu wax nañ ni looloo waral Serigne Touba ni ko jaayanteel moom ni ko kon dëkk bi dañ koy génn ndax aaraleef na la ko ba dara la lay ñetti wala aw tus di la fekk looloo waral mu génn dem Mbàkke suul iqda suul hijja muharram safar mbakki bëri boo ko nag ba dem booba Cheikh Moustapha Al Karim ñi ñuy wax toll na ci sëppéem wala kon tolloogul ci bari at lool toll na ci ndaw lool moom ak Cheikh Amadou Fadal la sëriñ bi yóbbaale mbakki bëri ne fa di bi ba safar gi jàpp ñëw fukki fan ak juróom-ñett ñu jàpp ko yóbbu waaye maam Thierno li tax ñu war a doguwaat ñun taalibe yi te góorgóorlu te xam ne ni sëñ Tuubaa defal mooy li taxan a jóg Sëriñ Tuubaa man toon loolu jar mooy sunu jëmm yi sababu xaybati an allah araada an anaala minhu jaara wan akuna saafi li xaw mi wan akuna xaadiman fi naw mi saafi an li xaw mi de mooy noonu mooy ramanu rek moo ko taxan a jóg kon war na noo gore te roy Sëriñ Tuubaa ci pas bi mu amal roy Cheikh Moustapha al Karim ci bi mu amal damay wax ni saa yu nit bis nitug yàlla warte foo jëkk mooy nga jël ay jikko ca lañ doon jàngale ci moom sëñ Moustapha ndax ku jëloon pas-pas bi mu aman rek ci yàlla diggante ma sunu borom pas-pas bi mu aman ci doon doomi soxla ba pare xam boppam ndax kon réew mi du defar maam Thierno kon nit ki faw mu am pas-pas door a am lu mu bëgg même caaxaan ki nit ki nga xam ne sax day caaxaan nit ki nga xam ne sax yàlla tax koo jóg waaye na mu bëgg intérêt moo ko tax a faw mu am ci ak dogu faw mu am ci pas-pas ndax gaynde ku mu raw la tax mu raw la mu raw àdduna ak alaxira ak euh, comme comme tubaab bi àdduna képp lañ bëgg di ci dañ dang yi guddeeg bëccëg ba dañuy teel a yeewu di di liggéey liggéey di guddee wàcc di ngir liggéey àdduna kese uh-huh. kon ki bëgg àdduna ak alaxira moom yaakaar naa war na farlu ci pas-pas ci ci pas-pas boo xam dana ko may mu dogu ngir lépp loo xam ni ak jaamu yàlla mu sax ca waaye mu fexe ba bañ a gannaawal nag liggéey maanaam boole liggéey ak ak ak jaamu yàlla wabtaxi fii ma aataka allaahu daaral aaxira wala tansa nasibaka mina dunya kon Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa day wax ni waxmal li nit dunya bima takunu fiha tanqulu ayuha alfatin waxmal li nit oxra xadra ma tabqa fiha wa man xaalafa daala xaara moo ne nee na yéen murid yi maa ngi leen dénk na ngeen liggéeyal adduna ba mel ni doo leen fi jóg waaye ngeen di jaamu yàlla ba mel ni tey tey tey ngeen di fàtte ñaar yooyu mooy wabtaxi fiimaa aataaka llaahu googu mu wax kon murit bi li ëpp solo ci moom mooy xaqiida pas-pas pas-pas ku ko amul amoo dara te ku mu jeex ci yow ñàkk nga lépp doo dootoo amal dara te dafa ne ni pas-pas yooyu nga xam ne moom lañ daan am te ñi jiitu woon doonoon ñoo xam ni ñooy suñu bàyyi ci yoon bii ñu nekk mooy ñi àndoon ak Sëñ Tuubaa ñooñu pas pas yi ñu amoon waru fee jóg te daa mel ni mu ngi raaf ndànk-ndànk mooy li mu doon junj léegi euh, daa mel ni jamono ji da ngay gis koo xam ni danaan euh, day nekk ci kër ba sëriñam jóge fa bu fa doomi sëriñ ba nekkee nam ànde woon ak sëriñ ba da ci delluwaat est kon. lan la àndee woon ak sëñ bi. intérêt. ndax ndax entreprise bu fekkee ne da nga fay liggéey di fa liggéey bu borom faatu da ngay war a bàyyi wala da ngaa war a continuer kon loolu te loolu mbirum àdduna kese la sakkaan ak mbirum yàlla gannaaw gëm nii nag sëñ Tuubaa du fi jóg kon murid bi waxtu nekk war nay feddali pas-pasam bu demoon ba gis kuy nuru ku doyee di sax sëñ Tuubaa ku fi teew du dee pas-pas bi mu amoon démb mu gën ko yokk xam ne yàlla moom dafa exister te moom rek moo am existence maanaam leneen exister wu lul lool te sëñ bi nee na lawal wujudu ladi xabisaanahul xidamu ma albaxer nee na amam gi moom yàlla moom kenn werantewul jiitoom gi lépp yit nee na ba dara amagut moo fi nekkoon nee na bu lépp jeexee nee na yàlla fi desaat sax suñ duwaa ni pour mu rek loo xam ne moo gën a gàtt nee na waaye wa xayrullahi lillahi waaw lu dul yàlla yàlla. lu yàlla yàlla yàlla rek am. yàlla rek am kon mbirum yàlla du jeex xëy na kay pas-pasu nit ki mooy wàññeeku ci mbirum yàlla. Hmm. ak na mu koy gisee buñ tollee ci yi mondialisation nga xam ne adduna bi dafa xëttaloo. Hmm. ke nekk Australie ak ki nekk xelkom ñooy am maanaam la kële di dund en temps moom la ki nekk xelkom di dund en temps maanaam ñoo bokk benn barab buñ nekk. waaw ko waral maanaam internet. moo tasaaroo fa internet moom mel na ni bëgg naa nga wax ci tuuti ndax mel na ni pas-pas gis naa ni bokk na ci li koy wax. Euh, jërëjëf sëñ hmm. wax lu am solo. Hmm. lool lool mooy loolu nga fàttali ne Serigne Touba da mu nekk ci di liggéey waaye di jaamu yàlla di liggéey ba ku ko gis. dee ne moom kat day waajal boppam ndax dootu fi jóge mukk waaye di waajal faatu boo ko gis dee moom mii de léegi la nar a faatu loolu maam Thierno lu am solo mooy kon nit ki faw mu boole liggéey ak jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi dafa ñëw Kuufa am ku mu fa fekk mu doon ab jaamukatu yàlla bu mag waaye nangu la def dara jaam yaa rek la féetewoo ñu wax ko yonent bi ñu ko jàmbaar la lool ci jàkk ji la dëkk jaam yàlla guddeeg bëccëg yonent bi ne ay yitteem ku koy doxal ñu ne ko ñeneen ñi ñu ne ñëpp ko gën kon da gis ne mbir yi ndekete faaw nit ki équilibré mooy boole jaamu yàlla ak liggéey maam Thierno wax lu am solo lu dul yàlla lu dul yàlla du yàlla yàlla rek mooy yàlla loolu sëriñ bi daan na ko dénkaane lu bari waaye rawatina adduna mii wax nga ko léegi ndax liñ fi dàq lépp am poñet la te ku jël misaal rek ku jël misaal ci Cheikh Moustapha Al Karim mii ñuy waxtaane bi nga xam ne mos sa adduna mos koo tax a xëy wala mu tax koo gont dëgg la lum mas a am ci adduna delluwaat delluwaat na ko ci liggéeyu Serigne Touba bi waaye mooy na ko way bi rawu tedd defe woon rek daa waxande aqbalatni dunya inay qablu wa bi'atuha fa saala an al qablu wa baadu adbaratni wa lam amin laha li kawniha daara sunna la adduna dama jublu lu jiitu ma jaay ko jënd ko àllaaxira ginnaaw bi sax adduna dëdduwaat dëdduwaat na ma waaye faalu ma ko ndax moom këru tooñaange la mm-hmm. waaye ba mu ñëwee ba mu ñëwalee ba ma xam ne jàpp naa ko dama koo jaay jënd ko àllaaxira moom lay waxaat ci Mawaahibu muy xasida gu day waar xattaaka kabla xabba sa falla fa dor wala wa naf u jaay Sëriñ Tuubaa daan bàyyi na xel àdduna ndax pas-pas yu ñàkk yi yëpp ngay dégg di dara lul àddina àdduna Sëriñ Tuubaa jàngale woon na ko àdduna Sëriñ Tuubaa daa waxal ne àdduna jublu si na àdduna daa wax ne jublu si na mooy dee te ki koy dàq ki koy daw mënu koo raw te dëgg nañ ne àllaaxira muy dee te ki koy daw mënut a fexe ba jàpp ko borom benn xam-xam daa misaal ne adduna ak poñet mi ci nekk yëpp ak poñet mi ci nekk yëpp nee na ñu ngi mel ni naaj li ngay séen maanaam boo doxee naaju tàng géej gi ngay séen ci kaw tëli nee na dafa ju moo tax sëñ Tuubaa daan na ko dénk ci xikma boobu xam ne sëñ laa dajale woon na ko waan na adduniyaa mamarun wala axiratu maqarun la adduna ab rombukaay la waaye alaaxira mooy jaar mooy mooy mooy mooy mooy saxukaay ba kenn du ko jóge wax nga ko léegi yéefar yi bi nga xamee ne adduna mooy seenu kaso mooy seenum àjjana moo tax lu leen ko nar a xañ ñu jaar ci sa kaw ngir am adduna waaye ab yéefar nag comme adduna mooy këram du bëgg ko ko xañ waaye jullit bi xam ne adduna mooy ab kasoom waaye àllaaxiraam nag mooy àjjanaam loolu kon jullit bi bu ko xamee faaw muy jànkuwante bu bare bare wax nga lan nekk boo xam ne jamono mondialisation jamono masiixu dajjaal waaye jamono xëttaloo Amérique Italie France àdduna bépp nekk sa poche mooy jamono internet di defar lu bari ndax internet bokk na ci li tax. nga mën a seetaan Mafatul Bichri foo mën a nekk ci adduna bi di dund en live màggalu Cheikh Moustapha al Karim bi nga xam ne moo ko doon defal waa woon waaye internet it ca la nit xëyee ak njulit waaye gontoo doon ab yéefar xëy nekk julit gont doon ab gont doon ab yéefar ca nit xëyee mën a defaru faw ci ay waxtaan yu baax ci ay waxtaan yu rafet ci ay nasiha ay laabiire ci ay naka la nit ki mën def ba jariñoo boppam ak diineem waaye ci nit ki mën a xëy nag surux ci kàmb goo xam ne dootul dégg mukk ñooy jàpp ci loxoom daan ko génnal ana ñana mooy borom xam-xam yi ak waaraatekat yi ak borom téere yi fekk na booba tàbbi na ci kàmbug réer tàbbi na ci kàmbug tuuxiyaan muy jaw tàbbi na ci kàmbug sànkute waaye tàbbi na ci gànnug góob bànnee xam ba nga xamante ni mënatul a génn gisatul sax borom xam-xam ya gisatul sax téere ya gisatul sax ña koy ña nar a jàpp ci di ko génne moom la ma gis mooy toskare na adduna yaay na ko iblis sadd na ko moom iblis ba nga xamante ni moo waxam suñu borom ni ko la aqoo daan na siraatakal mustaqim mm-hmm. kooku mooy internet bi lii mooy li mu defar mm-hmm. lii mooy li mu defar waaye lii mooy li mu yàq loolu moom ñu ëpp ci adduna bi xam nañu day defar waaye day yàq kon nañu fexe ba wet bii defar ñu fexe ba jublu fa góorgóorlu ca ci suñu pas-pas waaye ci ñi nga xam ne ñoom lañu yonte bi salaa salaam waxal ni ay sàmm ngeen ci ñoom te bu ëllëgee day sale laaj gi ngeen doon sàmm te mooy njaboot gi njaboot gi nag ka ca jiitu mooy soxna si ka ca mooy doom yi ka ca def mooy murabbiyaat bi mooy ñi ngay xam ni seeni responsabilité ci sa kaw la aju ñooñu yonent bi salaa salaam dafa xam ni yéenay seeni sàmm te ba léegi des nañ ko laaj. dëgg la kon war nañ leen koy laaj. ndax damay wax ni. fiil gu sew gi bawoo fi barab. dugg ci sa kër. waaye maam Thierno xoola teraanga ju rëy din ko jox ci kër gi mooy dañu xool espace bi ëpp ci kër gi muy saal la ñu teg ko fa dañ koy am de waaye dañ koy muur xoola teraanga jooju waaye booba xamoo ni da ngaa mel ni koo xam ne da ngaa farlu lool ci yar ay ginaar waaye amoo lu dul bés nga jënd sa siiru bu rëy wala nga jàpp sa muus mu rëy def ci biir kaaf bi maam Thierno kaaf bu fees delloo ak ginaar nga jël siiru su mag dugal ci biir kaaf ga looy fekkati kaaf ga ay yàq ak doom mooy internet mooy télé yi nga xamante ni dañuy jóge ci sayalaan maanaam ci jaww ji boo taaraaboon yor yi amit yu bari yi nga xam dañoo am ñu bàyyee ko njaboot bi te deesu ca jàpp lu loo xam ne neex na yàlla wala neex na yonent bi wala neex na Serigne Touba wala jàngale na jikkee Cheikh Moustapha sa Karim mi nga xam ni mooy taaw baayam ba nga xam ni ba mu wuutoo Serigne Touba xat la mu sëñ Maam Jaara dëgg la Serigne Kosso yaakaar naa ni ñuy seetaan am nañu mbégte ci waxtaan ngir solo si moom ndax jëmmi Cheikh Moustapha moo mel noonu yaakaar naa pas-pas bi nga xam ni moom la ñuy waxtaane ci moom euh, jéggi na dayoo li ñuy wax pas-pas lépp maanaam li mu Seex Mustafaa moo tax mooy taxawaay bi mu am ci gannaaw Sëñ Tuubaa loolu pas-pas boobu dafa dafa dafa dafa dimensionné maanaam bu toll foo xam ni dafa naqaree maanaam takk maanaam dimension bi foo ko takk weesu damay wax ni euh, responsabilité boobu lu ni mel waaye li mu Moustapha waxoon rek ni kaasu kafe yi ñu waxoon te gisagu ko moom la gën a gën ci lim téye te xoolal booba ba ma lebul foofu seen lañ jàng am ku toog fi kanamam mel ni ku sikk sàkk loola ah! sëñ bi ñaan gi mu ñaan ci Tuubaa booba mu gis Tuubaa doon génn kër xam naa loola jaaxal na ko ndax loolu dana jaaxal nit àll boo xam ni am am àll boo xam ne ay gaynde fi nekk nga dégg sëñ bi naan nag ma tabaxal sama dëkk bi ba mel ni Madina dana la jaaxal da war a jaaxle ci màndik mu mel nii nan la war a mën a demee ba mel ni Madina foo xam ni ndox jegewu fa foo xam ni port jegewu fa foo xam ni aéroport jegewu fa kon naka la dëkk bi di war a mën a màgge ba àgg fa loolu ci xelum nit rek dana ko jaaxal ngir Touba kon moom euh, màggewul ci màggu saayir nii rek mënee su xam naka lay lay lay lay naka lay jëme kan ku mel noonu nag sëñ Touba gëm googu mu ko gëm man damaa jàpp ni ba suñu suñu musuwaat mag ñi li ñu rëy rëy pas-pas ëpp ñu ko pas-pas. xam nga maam Thierno wax nga lu am solo euh, pas-pas. sëñ Modou Moussa day nekk ab jàngale. xam nga Serigne Touba bi muy wax ni banaaliyal baaxi binaa an baaxiyaat bi xëyri xet min lil dinaa ne raaqiyaat ak wax fi ne man banu aw naqalu am caatan yow ma jawaa maes xalu ak wax fir li man amaruhum bihi jamia yooyu nga xam ne naaluk tabax la ci doon naal dañoo wax ni li gën a yéeme mooy Cheikh Moustapha Al Karim di ñaan di ñaan ak ak di ñaan te booba aw birig amul dañoo wax ne dañoo wax ne Cheikh Moustapha bi suñu borom dogalee muy naan jumaa ji hmm. maanaam li gën a yéeme mooy tubaab bi da ko ne Afrique maam Thierno hmm. tubaab bi da wax sëñ Moustapha Al Karim ne ko Afrique li nga naal nii ci jumaa Afrique waxuma la ab ciment waaye ngeer mi nekk Afrique lépp boo ko doon boo ko doon ràbbeem ngeer mënu koo ràbb <laughs> maanaam loolu yow li <laughs> li nga bëgg a tabax yow ciment nga bëgg. ciment booba ciment. booba sax moo bëri. booba ngeer moo nekk ci réew mi. booba ciment. waaw moom moo bëriwul. maanaam ndax pour am ciment pour tabax problème la. booba dëkk boo xam ne amul ciment. ngay naal tabax yu toll noonu. Euh, xam nga mooy li ma la mooy mooy li ma la xam léegi euh, Serigne Touba la kenn xamul wa yaxlaqu maa laa ta'lam noonu ko mooy Serigne Touba. lu mu mas a digle li lay yàlla da koo may ba pare su yëpp laa daa fàttali woon ni Touba gii Touba gii lu sëñ Touba ñaan ku yàgg dund nañ ci teg sa bët. waaw ndax ndax am na ku ku sëñ bi ba mu naan euh, sëñ bi dafa wax ni euh, wam nun ala bi ma jaani mhm. am ku jaaxle ci loolu ba ñëw di wax sëñ mag bi naan ko. ndoxum Touba bi de xanaa ku gàtt fan doo ko fekk. waaw mu ne ko ku gàtt fan du fekk dara. du fekk dara. nga xam jëmm jooja yàlla daa dogal mooy li ma la wax maanaam boo gisee damay man bokk naa ci ñu gëm mis na siniha bi jaay xayri man abad. dëgg la moom kam kam turandoom wa ca àjjana. Mm. ndax li koy waral. Mm. mooy Touba àjjana la. Touba mën naa cee joxe benn exemple rek loo xam ne. Mm. su ma ko waxee. ki nga xamante ni moo ki nga xamante ni moo dëkk Touba dana ko xam Touba li tax àjjana la mooy Touba ki fi dund no stress lay dund ndax wa maskani sallim min al fujaari Touba ngay dëkk mu wóor la ni yow di nga jóge sa kër ba dem fu neex te doo tiit lu jëm ci wàllu sécurité te amaana am na fi barab yoo xam ne mu war a amee làmp ba tey amagu ko. dëgg la sëñ ko soo xam naa ni loolu moom danañ ci waxtaan waxtaan woo xam ne. Uh-huh. Eh, man ak yow moo koy def. incha allah ci màggal gi ñu jub si. Uh-huh. bu ko defee xam naa eh, dañu lay bàyyi ndax fi mu toll nii coono yi bari na suba ak léegi léegi yow nga wax message bi nga xam ne bëgg nga ko wax ñu seetaan uh-huh. bu ko defee sëñ Amadou Ndiaye Ngiraan war nañ koo daral léegi léegi. am lu tënk bu gàtt boo xam danañ ci waxtaan ak moom ci Cheikh Moustapha ci euh, maanaam euh, tracé maanaam ni mu indee raay bi jëlee ko Njaareem andi ko Touba ah. loolu dafay lu am solo loo xam ne sëñ Amadou Ndiaye Nguirane euh, yor na ci ay archives xam ci lu bari ñu bëgg ci waxtaan ak moom xam naa ñu bàyyi la nga Euh, wax message bi nga xam ne bëgg nga ko wax mbokk yi bu ko defee ñu xaar la ci cérémonie officielle bi suba incha allah. Euh, jërëjëf sëñ Mame na maa ngi santaat bu baax ak a tàmbalee euh, namu bu baax téléspectateurs yi nga xam ne dañoo saxoo seen télévision ma fatul Bichri ndax ni nga ko waxee rek saa su ne yittey télé bi mooy tàmbalee ci sëriñ bi yem ci moom waaye mbokk yi saa su ne ko dañ di wax damay wax ni ki toog. di seetaan mu fàttali bisri war naa laaj boppam fu ñu jëlee li ñu doxale lii ci sëriñ tubaa waaye kon taalibe Serigne tubaa yi war nañoo fexe ba jàpp ci tele bii di ma fàttali bisri ndax dañuy wax ni saa su ne ni nga xamante ne xasida Serigne Touba gi ñu ko tuddee ñëpp génn nañ ci ba set rek ci ne bëggee lépp lu fi dugg noonu lay mel kon taalibe Serigne Touba yi ñoo war a jàpp ci télé bi ñoo war a jàpp ci télé bi mooy di fi siiwal seen i marchandise rawatina màggal gu tedd gi nu jublu di fi joxe seen i communiqué waaye di ci dugal seen loxo ngir liggéeyam Sëriñ Tuubaa fi ñu ko bëgg a yóbbu ñu man ko faa yóbbu. dëgg la loolu kon ñun ñëpp noo ko bokk lu ñëpp bokk nag defe naa ne bu ñu ko waxtaanee waxtaane gi weesuut ñu ne ñoo ko bokk kon ñëw leen kon tëjuluñu kenn suñu bunt kon war nañ koo mën a yaatal yaatal gu toll ni kenn ku ne jàpp ci ngir jëmi suñu Tuubaa fam te mën a <coughs> jël mën a jàppe ñu ngi ko def mooy da am sa xam-xam nga ñëw gaaral ko kii am fas fasu mën naa ko ubbi sëñ ma dama mbay ubbi ko ngir jëmmi sëriñ Tuubaa kon ki yor alalam war ko cee mën a def ngir ni lii kër war nañ ko cee jëmbat <coughs> ngir mu am continuité loolu war nañ koo def <coughs> kon maam Thierno <coughs> loolu mooy samay kàddu yu tàggatoo ñu ngi ku ñëw fii ci Daaru Xudoos nag saxal dina dem si Moussa Ndiaye di sun naataango ñu bokk ak moom di liggéey di ko ñaanal jàmm waaye di ñaanal bokk yëpp jàmm di ñaan suñu borom defal la tawfeex ak saadatu daara ne lépp luñ fi wax bu suñu borom la waaye lu ci dëng it ñu jàppe ko ak matadik doomu aadama suñ maam Thierno ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal ñu tawfeex di ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci caméra bi eh, sëriñ Abdoulaye ak sëriñ Gora Diallo sëriñ Mor Thierry Ziba di ñaan suñu borom mu doon defal tawfeex asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Kosso Seye man ngeen ko xaar suba incha allah ci cérémonie officielle bi euh, da ngeen ci ànd ak télévision bu Fatou Bichri ak Serigne Kosso Seye xam naa dañuy ànd ak waa Régie bu ko defee ñu dem animation bu ko defee ñu dalal Serigne Ahmadou Ndiaye Ngiraan euh, ngir waxtaane euh, jële gi sëñ Modou Moustapha jële raay bi Ndiarème indi ko Touba léegi léegi incha allah taala ba ci kanam. عن مزياتي كيما تقود زمام للرزيات أمت سليمان بصرف عن مسياتي كيما تقود زمام للرزيات أتى لتزداد قلبي حسن بهجة ووجهت لي يداي أمسكت تطيب نفسي كي أميل الهام وقاولت نيل قلبي لعدياتي وقافتني بما يدور لغيبتها وأزهرت صدق وادي بالرقيبات ثورا تجيني وتوليني جوائزا وتارة ليتودي بالبسارات لكن علمت وعلمي سوف ينفعني بأن ذات مين في المقالات كانت مواعيد هروب لا مشلا وما موائبها خير القيامات ليست بريز إلا أدخلت كدرا من بابي وتداري بالمكيدات ولا تري نفع إلا أثقلت دررا في ودومرها المن في المهونات وجاء régie ci euh, animation bu am solo boobu euh, mbokk yi ñi leen doon wax ni sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguirane dañ war a àndal ngir jeexal jataay bi waaye yàlla dafa dogal dafa bokk ci comité d'organisation bi bokk ci ñi nga xam ni dañ chargé wu trop pour euh, mën a ñëw ci plateau bi du yomb waaye du tee danañ waxtaan ak moom ci waxtaan woo xam ni à part lay doon da ngeen ko mën a topp ci Euh, YouTube bi ak ci Facebook bi incha allahu euh, balaa màggal gay jeex kon fii lañ leen di tàggoo tàggoo bu dul tàggoo mooy euh, waxtaan bi nga xam ni moom lañ doon waxtaanee jëm sëñ Mor Moussa am na yeneen tomb jees ndax sëñ Amadou Ndiaye Ngiraan danañ waxtaan ak moom ci weneen waxtaan woo xam ni jële gi sëñ Mor Moussa jëlee raay bi. njaareem andi ko Touba defe naa ko ko ci gën a xam dara yombul ndax yor na ci ay archives yor na ci ay gëstu yoo xam ni danañu ci indi lu leer luñ mën a euh, sukkandiku loolu danañu ko topp ba séq moom waxtaan woo xam ni da ngeen ko mën a topp ci YouTube bi am ko euh, man ko teewlu bu baax ndax loolu histoire la bu riche boo xam ni yaakaar naa ni euh, lu jar di lu jar a gëstu la am nañ occasion wu man ko am ci vidéo ngeen mën ko topp kon euh, mën ngeen a wéy di topp télévision Farul Bichri fii ci biir Touba waaye fii ci biir Darou Khoudoss waaye ci biir màggal gi nga xam ni moom la ñuy fàttalikoo ñëw sëriñ Touba fii ci dëkkam bu sell bii di Touba di fàttaliku jëmm ju tedd jooju nga xam ni mooy Cheikh Moustapha ni ko fi indi woon ci këram bu mujj jaa ngeen jëf. ba ci kanam man ngeen wéy di safoo seen télévision Fadul Bichri wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.